asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo émission bii di Euh, taxaw seetlu ñu ngi leen di euh, ziar ziarub màggal di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajihun yéen ñi nga xamante ne ni yéen yéen a fare si youtube bi di door a jot xibaar boobu di Issa Thiaw Samb Laye ñi nga xamante ne ni moom lañu ñàkk si ay circonstances yoo xamante ne ni yu doy waar la waaye nag di fàttali ne si yàlla la ñu jóge woon te si moom la ñuy dellu du may jóg si di koy wax yàlla dee la njëkk sàkk balaa muy sàkk li nga xamante ne ni aussi moom mooy dund metti na lool waaye nag nangu ko te am yaakaar bu baax fu mu jëm ndax si li mu nekkoon nag nekkoon ay mbir yoo xamante ne nii tubaar fakal la macha allah ñu présenté leen Issa Thiaw Laye duniyaa du kër bu leen ko tee amul xarit bu sax fi moom waraatekat la àddina laay laa hal yusuf yusuf li abihi abi ya abati abi ya ya abati inni inni hal inni ra'aytu ra'aytu boo dem na ba Casamance te naan limaam mooy rasuluna yàlla ko yónni jindu mas dundal te wér baay Abdoulaye Kajoor de ñëw na waalo ñëw aboo fajar ne leen yonen mu ngi ci saw bi wuy si leen dundal te baay Abdoulaye bés bu set yaa ngi bees su ñun xanaa samaam dala kulóor ko tee amul xarit bu sax fi moom waraate kaat la àddina laa ilaaha illallaah muhammadu kii comme ni ngeen ko gisee noonu kooku la ñu ñàkk ci circonstance yooyu nga xamante ne ni ay circonstance yu métti la waaye nag diine rek nekkoon li nga xamante ne ni moom mooy li ko ñor moo tax ñu am yaakaar bu baax ci ne wax dëgg yàlla fa mu jëm mooy gën fuuf fi mu jógee bref ñu ngi leen nekkaloon si li nga xamante ne ni moom mooy média média ak lobby ak li nga xamante ne ni moom la ñuy wax euh, mise à jour ak formatage enseignement nag lu ñuy dugg gannaaw bi ñu leen wanee ñooñu nga xamante ne ni ñoom la ñuy imposer ñu def leen ay idole bëgg nekk ay borom yi koppar mën nañ si sutee rek ñetti nit ñoo xamante ne ni ñu àddina bi ñëpp xam Lamine jaar tey mu ngi si ay loxo ki nga xamante ne ni moom monsieur Gon moom mooy yoroon li nga xamante ni moom mooy Renault ak Fiat yëkkati société yu mag yooyu ki nga xamante ne ni moom mooy Bernard Madoff kooku aussi def ay problème yu doy waar si àddina bi ndax xaalis xaalis ñu wan leen aussi saali wu Mbacké ni nga xamante ne ni noonu la dëddoo woon àddina te nag Serigne Saliou nee naa la ne du man du yow au mooy sax ñun mun nañu wax ne suñu mbele mbele yi dañoo gisul xaalis moo tax waaye sëñ Saliou ku nekk xam na ne su bëggoon alal da koy am te du sax jafe waaye mu dëddu nag ndax xam na ne dunia jiifatun àdduna mëdd la te mëdd solo yi mu am tani ak sax yi kese ñoom ñoo ko xam euh, mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ñëw ci li nga xamante ne nii moom mooy li ñuy wax gerde des médiatisation nag mooy li nga xamante ne ni moom la ñu fésal àddina bi yëpp xam ko comprendre ko au profit de qui à leur propre profit enseignement chers enseignants j'en ai des frères j'en ai des fils j'en ai des sœurs j'en ai des cousins mais euh, veuillez me comprendre permettez-moi un peu de m'exprimer par rapport à l'enseignement ma wax leen laaj leen est-ce que vous savez ce que vous nous enseignez chers enseignants est-ce que vous savez ce que vous nous enseignez qui s'en profite-t-il ñan ñooy profitoo ci enseignement bi ngeen ñuy enseigner pourquoi accepter de nous enseigner quelqu'un qui n'a pas d'impact positif dans notre société lu tax ngeen ñuy enseigner loo xamante ne ni lu amul impact njëriñ ci société bi ñu nekk di dund maa ngi force ci benn këyit ci examen yi nga xamante ne ni moom lañu génn ak yi ñu jëm ñuy wax benn femme buy wax Fatou Diom di expliquer ne dafa ñëw ci benn village fekk benn famille boo xamante ne ni famille bu pauvre la daanaka borom kër gi mu ngi am ay jabar yu bëri yor li nga xamante ne ni moom mooy ay doom yu bëri nee na boo leen da ngay gis seen yax yi di feeñ nee na bu ñu dugalee seeni loxo nee na bu ñu tibbee du delluwaat nee na euh, la mu ko yaayam doon jox wala maamam doon jox pour mu temps bi muy def si village boobu nee na bu egsee rek maanaam ay bonbon wax ay chocolat am nee moom balaa muy yëkkati sax sax waa dëkk bi dinañu jël lépp lekk ko tellement que dañu loolu benn paragraphe la si livre waaye nag certes si finalité bi am na lu positif mais paragraphe bi moom lañu jox élèves yi pour ñu jàngat si li nga xamante ne moom mooy am ay soxna maîtresse d'un homme marié infidèle ak yeneen ma su fekkente ne nii nangu lu ñu leen ngeen am ay soxna te ñu nangul leen ngeen am ay maîtresse su fekkente ne ni nangu lu ñu la sa jëkkër am jabar am yeneeni jabar yow nga bañ loolu di dugg si ruufu nekk metre si keneen koo xamante ne ni si bureau lay nekk bureau bës lépp di xaje bureau am lu fa canapé ak salle de bain di defe promotion canapé tey kat yi ñuy dawal si tali yi bari nañu bëri ñoo xamante ne ni du ñax moo leen ko may waaye loolu ñuy wax promotion canapé mu delluwaat ma ci instrumentalisation de la femme jël jigéen dugalu ko ci bureau yi nangu ko ci boroom këram di ko jabaroo du ñépp de li ngeen ñuy jàngal chers enseignants ak fi jamono toll ak li ñuy dund ndax xam ngeen li ci yàqu-yàqu yi doon duma ko bàyyi dinaa ci ñëwaat mu gën a yaatu rak